bismillah jinna faw fawɗo funnaange amaru yawhirnaange inna allaha anna allaha billibadi basiran jinna mono ko be toloteege talateege allahn kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenjiti kidonkon jinna mono ko be toloteege talateege allahn kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden gidi kidon ko ginna kiti saya bonaya saya wonande allah soginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna oldi koroyanna nabiyanna nabi dure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samaruusi Samsi samarushi Samsi samarushi Samsi samarushi monokobi tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi jinna monokobi tolotege talatege allan kantan en uddi ɗo uddi hakkunde nden jiddi kidon kon jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kuru jinna so jinna ulde koro yanna ñom ñaar ñëpp ay jinne lañu koro yanna nabi yanna nabi ndure ndurete so jinna so so jinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samaruusi saamsi samaruusi saamsi samaruusi monokobi tolotege talatege allahn kan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiddi kidon jinna monokobe tolotege talaate guee allan kan annabi kan ley uddi dow uddi hakkunde nden kidon kod kiti saaya poloya saaya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna oldi koroyanna nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samaruusi samsi samaruusi samsi samaruusi samsi samaruusi samsi samaruusi monoko allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenjidi kidon kojjinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow hulu allahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu walam yakun lahu walam yakun lahu kufuwan kufuwan كفوا كفوا كفوا قل هو الله أحد الله صمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كتي سايا بلا يا سايا ولنت الله سجننت الله هنا الله صمد الفاي جايري الفاي باتنو kurjinna sojinna olde koroyanna nabiyanna nabi ndure ndure te sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samse samaruusi kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna olde koroyanna nabi yanna nabi dure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi sama ruushi samsi sama ruushi samsi sama ruushi samsi sama ruushi samsi sama ruushi samsi sama ruushi atake approché atake approché approché attraper attraper attraper approcher attraper approcher jinna mënoo koo bee mënoo koo bee tooloo tegee waaw jox ma boobu talaa yow fawlu funnaange amaru yow xiir naange xoola porte ba fee amul ku nekk foofu balaa ñuy daw di génn parce que dafa am ñu bëgg génn amul ku gérer foofu fii naange amaru yow xiir naange inna allaha anna allaha billi baadi bashiran jinna mënoo ko tolotege talatege allah kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kidon kojjinna kidi saya bonoya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna olde koroyanna nabi yanna nabi ndure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi sa sama ruusi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden kidon kojjinna fof fawlu amaru yawhirnaange inna allaha anna billi baati basiran jinna jataluuru leere jataluuru leere ɓiree bamban ɓireeti bamban jataluuru leere ɓiree bamban ɓireeti bamban jataluuru leere ɓiree bamban ɓireeti bamban jataluuru leere biree bambang bireeti bambang cata biree bambang bireeti bambang cata luuru leere biree bambang bireeti bambang cata luuru leere biree bambang bireeti bambang cata luuru leere fof fawlu funnaange amaru yaw hirnaange innallaha annallaha billibaadi bashiran jinna mono ko bi tulutege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kidonkon jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna kurjinna sojinna olde koro yanna nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi samarushi samsi samarushi samsi samarushi samsi samarushi mono ko be tolote ge talate ge kantan annabi kantan ley udde to uddi hakkunde nden jiti kidonkon jenna mono ko be tolotege talatege allan kan tan dow uddi hakkunde nden jiddi kidon kon jinna kiti saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna ulde koroyanna nabiyanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kasa koye kaasi kiisi kasa koye kaasi samsi samarusi samsi sama ruusi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama ruusi attaqué approché attaqué aprose atake aprose aprose aprose jinna monoko be tolotege talatege allah kantan annabi kantan uddi dow uddi hakkunde nden jitti kidonkot jinna monoko be tolotege talatege allah kantan annabi kantan samaru sama ruushi saamsi sama ruushi saamsi sama ruushi saamsi sama ruushi saamsi sama ruushi saamsi sama ruushi saamsi sama ruushi ataake a procès ataake a procès haɓɓe ɓe jinna nangeeɓe haɓɓeeɓe nangeeɓe haɓɓeeɓe nangeeɓe jinna mono koɓe to loteke talateke allah kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkunde nde jidi kidon kod jinna mono koɓe to loteke talateke allah kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkunde nde jidi kidon kod jinna mono koɓe to loteke talateke allah kan tan annabi kan tan sikki yowla kan yow la kan yow la kan yow la kan c'est faux monokoɓe tolote gue talate gue allahn kantan kantan ley uddi dow uddi hakkunde en deñƴi di kidon kod jinna yawla kan yawla kan yawla nit loo tudd foo dëkk kayaar lan ngay def fii sa yaay moo lay seet moo may seetaan mu ne nga ñëw waaw di gis ay dret ak di gént ñu may sëyee ak ñu may maye te li ma gént souvent dama koy gis mhm. ba nii nii sax deret bi arrêté wut damay gis deret nii mhm. non baax de ma xamul lu mu doon damay gént parfois sëy ñeewu deux jours ma yeewoo su gis deret deret bi day ah, mhm. nekk deretu règle. gént ñu takk la ci maanaam ñu maye la. Mhm. Ah, mbokk yi xam nga nekkoon jinne la takk jinne bi nag manifesté na woon na sànq. Mhm. xam nga ne ki yàgg na wasinal jinne jinne bi yënguwoon na fii léegi yënguwoon na fii léegi day day soobaka saale mais mu ngi fii waaw maanaam moom day wasinal jinne dañ koo maye dafa am jëkkëru jinne dañ dafa gént ñu koy maye loolu vérité la su may gént sama copain la may jox hmm? su ma koy gént sama copain la may jox lu tax waaw noonu la parce que sa copain xam nga da ngaa bëggante kooku def maanaam bu lay takk kooku lay kooku lay doon gis nga moo ngi fi day naxasaale jinne baa ngi fi mais baaka ak man dafa yaakaar ne man lay nax waaw dafa yaakaar ne man lay mën na ma nax nga ne waaw. Mm-hmm. koroog maa tëdd gént hmm? ñu maye ma hmm? jébbale ma léegi mm-hmm. léegi sama jëkkër bi may jël jànk laa ma sentir naa ko mu pare waaw mu pare too ma naan ko kontaan nga mu changé kanama te man bi muy sëy man bi mu kii lamb naa sama kanam gis deret mu pare gisuma dara xam fu deret bi jaar ate bi daf ma kaam ma ma xëy na man ko sibru moo ko sama yaay sama yaay moom dafay nekk di la seetaan rek bu la seetaanee sax man ko yow kenn mu lay sew dina gis sa esprit nga nekk fii di seetaan yi rek mook sama pap du ñu ne la ñu jotee nekk télé bi rek seetaan kenn mu lay sew rek mu naa mu ne danga kaa ragal man kaa ragal lu ma ko demee naa ko seetaan benn bis nag ma jël sama téléphone mu xaaral ma ma doon néeg ba ma dem ba ko bàyyi ko ah, mu àgg may xale boobu noonu su ñëwoon borom 18 ans bi xaw ma duggoon élève borom treize treize bu àggul bi ah, kooku moom seetaan naa ko waa kooku seetaanoon naa ko waa lu tax ñemewoo eggali vidéo yi dara man maa ko bëggul woon àggale rek mm-hmm. sama rakk bi dafa maa yem di si kooku su ma waxee mu naa ma yow dangaa am ji nekk soo fa demee di nga daanu bi ma bi ma ñëwee sama papa di ma ñaanal sax pour ma ñëw fii pour ma ñëw sama kër bàjjen laa jaare ñëw fii mu nekk foofu naan ni ngay jotee la doon wax sax naan sam su sam rouge sama papa di ñaan waaye sama papa mu koy reetaan rek soo rek bu góor seetaan rek moom xam naa sax gën wàllu jot bépp man naka dafa sob mhm, mu topp si man sax mhm. gis ngeen kii jinne moo nekk ci moom dalay leer ne dafa préparé ñëw fii ñi dafiy ñëw après moom feebar dem hôpital mu ko dafa feebar xam nga ban feebar la wax boo xam ne dafa laaj xaalis bu bàyyi waaw te bi ñu fii la man sax maa ngi ko doon wax ma ne ko yow est ce que nekkul man dina ko mën a ko ma jàng muus rek maa la gën a yeewu. ma xool la fii. man man ñu xool rek ma xool man amoo habitude du xoolaate noonu laa mel. li muy lay jaay. léegi yow. Hmm. nga ne sa yaay dafa demoon bay ñëw. ci man fii. sa yaay yow wala wala yaa yaay yow. waaw. après mu dem hôpital xaalis bi mu préparé ko ndike fii mu dem yem yem si bi yëpp man manqué na yow mi est-ce que ay jinn li nga préparé dem fee taxu jinne yi ñekk yàq sa xaalis sa affaire waaw parce que jinne yi xam nañ ne bu moom bu fi ñëwee. jinne mii dañuy am problème loolu moo waral ñu xiir ko yóbbu ko ci hôpital ba pour gaspiller xaalis bi foofu comprendre nga parce que jinne yi xam nañ ne booy ñëw fii. waaw dama doon ñëw fii xawoon wu jox ma parce que moom jàmbaar la liggéey lu mu am doomu ma foo dem souvent ñun la naa faju parce que su ma fajuwulee man na ma man na ma dama tëree am jëkkër affaire yooyu noonu. wala bu su may am jëkkër dina nekk affaire yooyu ay feebaru bopp ween yi metti naka biir nag su may indisposé ba li ma jaaxal sax deret bi di tey laa am ak démb deret indisposé la waaye xool bi ma ñëwee fii sama biir parce que bu indisposé simple dañ ci laxasu mais boo ñëwee fii naan si kenn mu nga nee na bu musaan indi posé biir bi day metti mais bu mu ñëwee fii tey biiram mettiwul parce que li daan mettil biiram tey ba mu ñëwee ci kër gi loolu du du du ko mën du ko ñeme du fi ñeme traîner nga ne ba nga fi duggee ba tey mu yéeg fii de aj boo doon añee ma dugg rek naan bi takk sama tut bi ne daf sama tànk tuut ma daanu si escalier sax yow mi yaa bi nag yi dégg jinne bi jinne xaw ma nit moo ngi wax de waaye nag moom day yaakaar ne moom dafa mbon instant bi ni affaire Moussa lay jaay ñoom ñaar ñu xaw ma fan lañ jóge Kayaar xaw ma fan Kayaar Tëngéej xam nga ne ñi ñëpp ay xam nga ne Kayaar Tëngéej foofu kay usine jinne la Kayaar ak Tëngéej macha allah dañu bëri ay jinne hmm? dama tëdd guddi nelaw après am na benn fu mu ko benn tabax bu àggul bi nekk foofu benn néeg mu génn sama yaay téléphone bi di wax ak man sama yaay ni ma jinne bi dañee na bu ko Thierno Moule may tuulee dina ko rey dina ko rey day rey Thierno Moule waaw sama yaay wax ma ko si gént bi dégg jinne jinne na daf may rey lendemain su ma tëddee nelaw ay cinq gént bi moom damaa fàtte la ma ko waaye léegi ay jinne su ma tëdd ma nalawee tuuti damay yama ah, man du ma nalaw benn yoon si guddi wala ngoon mais su ma nalawee tuuti damay jinne day wax ak man mais du xam li mu wax mais dina ma leer man li ma gént jinne la waaye li mu wax na instant moom xaw ma jinne yàgg na ne daf may rey xam nga ñoom macha allah dañ yaakaar nit ñi def nit ñi noonu lañ may def man xam nga ne loolu du mën a ne léegi-léegi am na jinne bu ma woo France nee na daf may rey nee na sama deret lay naan ma ne ko yow dañoo dajewul rek bu ñu dajee de doo wax waaw loolu nag noonu la ñoom ni ñu mel rek la ñuy waxee ñoom nu ñu mel rek la ñuy waxee parce que ni ni ñu ma wax nii bu ñu dajee yeneen sëriñ si noonu lañ leen di def man nag yàlla daf maa dimbali ba ñoom mënuñ ci man dara lu ñuy jéem ci man duñ ko mën suñu borom moo def loolu fu ñu jàkkaarloo ak man dañuy wàcc. Hmm. Hmm. Hmm. déet xool de moom ah ñëw leen nag waay. mbokk yéen a gis lii jinne bu jinne bu mbong la ñemewu ma xool tey soob saale waa léegi xool ma xooloo ma de dangaa dangaa xooluma de dafa gëm xool ma xool ma xool ah. <laughs> ma xool ma moo ngi noonu macha allah nga ne sama lan. maa koy xool. xam nga ko yow dara nekku si kay dëgg la ah? mhm. dara nekku si di xam nga wax wax na ci biir wax nee na Moussa Gueye la may wax na ko fii saa mhm. bii ni stratégie bi yëpp Moussa Gueye daf a nax mhm. maanaam jinne bu mboŋ la waaye nag fii nga may fekk yow day soob saale xam nga ni maanaam day kamu fale kamu fale waaw ah, day camouflé quoi day kamu fale mbokk yi gis ngeen jinne la bu mboŋ nee na man damay jaay muus waaye moom moo ma gën a muus moo tax fu mu nekk ni day jéem a fale dégg ngeen nee na xale bu jigéen bi nee na biir bi dafa doon metti waaye tey ba mu duggsee ci kër gi biir bi metteetul ndax nag fii am na lu fi suñu borom def tey bu doon dafa am lu nekk ci yow soo fi duggee day day wàññeeku lu bari sax loolu yàlla moo def loolu ci kër gi mooy baatin bi mu fi ne suñu borom moo def loolu te defe naa ne du kese moo wax loolu xam nga ne lu muy def li nit simple du ko def sant bi nit simple du def lu muy def ni hmm. kii de mënoo ci moom dara. kooku toog kooku noonu tourné fii. léegi yow li ngay xool kii mënoo lu tax mënoo ma xool. génn ci biti yi foofu en